ñoom procès lañ bëgg a dem te dinañ dem procès xam nga waxoon naa ko sa émission te soo leen di fàttali ko parce que sénégalais yi euh, mënuñoo fàtte loolu tamit en avril 2022 bi passé am na benn audio bu fuité entre Adji Sarr ak Mamour Diallo Mamour Diallo nankaan yow kay toogal rek ba après procès bi ñu daggal la bii nga génn réew mi mais mënu koo génn réew mi heure bi te boobu temps déglu woowaguñu mun naa wax ni woowaguñu Ousmane Sonko wala dossier bi taxu koo avancé comme ni mu avancé nii c'est-à-dire ñoom déjà présent avant Mamour Mamour Diallo mi ma nu ci Maham Diallo di joxe ordonnance am ñoom xamoon nañu d'abord fan lañ jëm sooy seetlu dernière sortie Adji Sarr yëpp Adji Sarr leen lay wax procès je veux un procès public je veux un procès public waxoon naa la Adji Sarr am na ko promettre procès public te du kenn ku dul état du Sénégal en complicité avec Macky Sall procès boobu nag ci lañ yegg ni nii tey moo tax ñun mu bettuñu en tant que apprenti juriste franchement euh, décision bi xam nañ politiquement xam nañ ne ci procès lañ jëm mais juridiquement parlant en tant que apprenti juriste bi jàng droit xam lu lu droit wax donc honnêtement am nañ ci mbetteel quoi. alors Sonko lan moo ko mën a xaar parce que jamono ji nag les choses sérieuses euh, euh, euh, ont commencé lan moo ko mën a xaar si li nga xam ne que moo di yoon ak wàllu ak yan peut-être yan avantage lay am wala comme sax yan privilège lay am pour daal si mën a génn. waaw xam nga mbir mi fu mu njëkk a tàmbalee rek Sonko actuellement lépp mën na ko xaar lépp. mën parce que man ordonnance de renvoi rendre c'est une décision illégale et injuste parce que nous, ay depuis boobu ba ñi faits am nous, mbir mi droit lu mu bon enquête en deuxième semestre deuxième année xam nañu la présomption d'innocence ak yeneen ak le juge droit de rendre une ordonnance de renvoi sous fekkee il n'a pas assez de preuves si les preuves sont insuffisantes ou s'il n'a pas de preuves le le prévenu doit être acquitté. Mme Maham Diallo amul preuve à ce que vous mën Ousmane Sonko procès. journaliste depuis coowal Adji Sarr bu ba suivre depuis deux ans deux ans ñi ngi def procès public deux ans génnal ma benn yoon wala élément de preuve un commencement de preuve pour accabler Ousmane Sonko y rek un témoin bu ñëw euh, accabler Sonko wala un enregistrement bu génn dugal Sonko wala ben certificat médical bu génn condamné Sonko wala ben vidéo wala lu mu mënti don bu génn bu né buy faire douter c'est-à-dire les Sénégalais que ni Sonko mi luñ koy qui muy viol amna ci lum ci lalé génnal ma ben rek en tant que journaliste xam nga ni tous les témoins ont déchargé Ousmane Sonko toutes les preuves am parce que enregistrement ci preuve la bok et en matière pénale la preuve elle est libre contrairement en matière civile euh, amul dara lu muy euh, jotek ak euh, li nga xam ne di dossier bobu di dossier viol manam enregistrement yek audio yek entre autres entre autres aussi ak témoignage bu ki nga xam ne di bu capitaine Touré amul dara lu muy peser si kaw dossier bi. non loolu du Maham Diallo moo ko wax mais procureur moko wax c'est le parquet ci réquisition mo wax loolu maintenant le procureur dans son intime conviction mom dafa war apprécier les preuves et ñun lu ñu jang en vertu du principe de la liberté de la preuve loolu sax moo tax ñu utal ko principe c'est un principe la liberté de la preuve est un principe en matière pénale toutes les preuves se valent Moi, enregistrement moi, aveu Nous le nous mënti le même niveau contrairement en matière civile en matière civile l'écrit est la mère des preuves parce que nous avons les modes de preuve parfaits en matière civile et les modes de preuve imparfaits. mais en matière pénale amul preuve parfaite amul preuve imparfaites. toutes les preuves se valent Moi, enregistrement moi, témoignage moi, aveu Nous leneen lu donner, le toutes ces preuves-là ont la même valeur juridique en matière pénale donc c'est procureur xam ngeen ni réquisitoire euh, procureur non le parce que le procureur est un corps hiérarchique Vous dépendre du ministère du euh, garde des Sceaux du ministre de la justice et que le ministre de la justice est nommé par Macky Sall donc procureur il n'y amul fitu sax di wax lu Macky Sall procureur bi nga le Serigne Bassirou procureur de la République d'après le rapport d'une enquête interne de la gendarmerie Nous avons Serigne Bassirou Gueye à ce que nous falsifier ay procès verbal pour charger Ousmane Sonko ak ay jël ay photo photos qui ne musul ci page officielle de la Beauté mu dem copier ji ko sos pour charger Ndeye Khady Ndiaye donc procureur il est dans le complot loolu kenn mënu ko nier parce que ce sont des faits d'ailleurs porté nañu ko plainte ñu génnee ko ci corps magistral magistrature bu mu nekkoon daal di koy yóbbu daal di koy nommé li nga xamante ne mooy président de de l'OFNAC l'office national de de lutte contre la fraude la corruption rien que pour mu mën a échapper ci plainte buñ ko kiiwal ci corps bu mu bokk lii yëpp xew fi tey euh, dossier Sonko Adji Sarr su nekkoon référendum ñu ne sénégalais yi kaay leen ngeen taxaw ñu ànd ak Sonko taxawee leen nii ñu ànd ak Adji taxawee leen nii tout en sachant que képp ku ànd ak Adji soo deewee safara nga jëm képp noo képp ku ànd ak Adji Sarr te Adji Sarr nekk ci toor nekk ci ñàkk dëgg soo deewee yàlla dugal la safara ko ànd ak Adji Sarr tamit te mu nekk ci dëgg soo demee soo deewee dem ajana dama ne la suñ ko waxoon fii ci réew mi ñëpp ci Sonko lañ jëm même Adji Sarr moomu ci Sonko lay dem taxaw ci booru Sonko lay dem taxaw Euh, dañuy daal di ñëw exactement ba léegi si si boobu de mur euh, euh, rare na gis ñoo xam ne itam dañuy comparaître li nga xam ne que mu di devant la barre en étant libre est ce que yow mi nga xam ne itam peut être xel màcc na jëm si pour juriste entre autres entre autres est ce que loolu mën a xaar li nga xam ne que mu di Sonko est ce que mu daal si sortir Saint-Sauf par rapport à ce dossier. non si si xam nga gars yi maa ngi dégg débat boobu di soulevé wu que ni Sonko su fekkee ne day dem chambre criminelle kaso la war a jóge mais loolu tamit ci am na yeneen article maa ngi ko doon gëstu tey suba rek dama dama koo pareegul nag mais amna ay article yo xamantene wax nañu y a une possibilité su fekkee ne joxe na garantie que ne dina présent dina présenter wu ci jour procès bi mën na baña mën nañ ko baña mandat de dépôt muy dem kasso du jóge kasso pour ñëw ci chambre ki voilà donc lolu chargé nañ ko depuis changé nañ ko depuis 2014 donc y a des jurisprudences donc je pense que euh, lolu mom wax ju yàqu la ay comme tey yóbbu nañ ko euh, rendre nañ une ordonnance de renvoi donc kasso la ko war a jëlee non loolu moom wax ju yàqu la quoi dem si ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck mu daal def ay révélation yu garaaw si ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko 24 euh, heures après ñu annoncé li nga xam ne moo di procès coïncidence ou bien calculé. bon man moom Sonko am na lu mu ci wax Sonko lañ tuumaal moom la Cheikh Yirim Seck euh, wax loo xamante ne Sonko nié na ko Sonko nee na dina porter plainte devant la justice ah ñu ngi xaar fu wànnan di mujjee ki bëttam tout en sachant que justice bi tamit dafa jot ñu ñaawlu doxalinu justice du activiste de membres de la société civile, toute personne qui s'oppose à cette gestion scandaleuse de Macky Sall introduire une plainte de Moujifen. le 21 septembre 2020 bi suis venu à grande porte grande porte le 21 septembre c'était un lundi 2020 et 10 éléments de Jémy Diap je ne ITT bu 21 jours incapacité temporaire de travail certificat médical de 21 jours ma dem porter plainte ñaari audition la ci def qui dégg plainte bi fu et pourtant nenañ ma numéro plainte baangi ko devant le procureur mais le procureur Serigne Bassirou Gueye comme nous avons def les rapports de l'OFNAC Nous mu les def ak rapport Cour des comptes nous mu un def ak rapport ARMP ak corps de contrôle Nous avons lay def plainte activiste plainte société civile plainte opposition bi plainte toute personne qui s'oppose radicalement ou même de, pas radicalement, mais toute personne qui s'oppose, qui n'est pas du côté de Benno Bok Yakar ou de la paire, sa plante du mujj fenn te ñun suñuy impôts yi ñuy fay soo duggee ci boutique bi produit yi boo jënd fay nga 18 TVA impôt 18 pour cent boobu mooy financé mooy fay magistrat yi moo leen di jox ay indemnité moo leen mettre dans de très bonnes conditions Macky Sall fayul magistrat yi Macky Sall fayul justice bi parce que nous sommes dans un état où la séparation des pouvoirs en fait théoriquement c'est mais dans la pratique ku ci nekk am nga ci appréciation mais magistrat yi nga xamante ni nii tey dañoo jàpp ni Macky Sall moo leen di fay man loolu moo ma metti ba maki Sall fu mu leen xool foofu ni ñuy xool maki Sall fu mu leen joxoñ foofu ni ñuy jaar loolu warutu benn sénégalais warutu koo nangu ci réew mi Macky Sall utiliser na justice écarté Karim Wade utiliser na justice écarté Khalifa Sall koo xamante ne yow nee nga un milliard huit cent millions nga koy toppee mu ne pare naa pour fay deux milliards nga ne ko nanguwuma li ngay fay tëj ko cinq ans ba pare amande ko cinq millions est-ce que gis nga différence bi gis nga différence un milliard huit cent millions ak cinq millions loolu yëpp di wane ne encore une fois ci ay tappale yu metti la Macky Sall nekkee ci réew mi ak jaay doole di ko jaarale ci justice est-ce que loolu ñun war nañoo toog di ko seetaan te soo taxawee di ko dénoncé ñu ne la booy song nga da ngay toog di dégg ay nit ñu la lan doo activiste. Euh, ñu ne ana sa carte Pastef. wala ñu la ana sa Pastef nga bokk. ci ko xamante yow yoro carte ñun suñu bokkoon Pastef duñ koy assumer parce que luñu def su fekkon dañu bokk Pastef ba par di ko nëbb lu def ni perte temps la. est-ce que mën nañ la xaar fii ak 2024 Pastef Pape Abdoulaye Touré. man je suis un citoyen libre constitution bi may droit citoyen bu nek excepté les magistrats ak yenn corps yi nga xamante amuñu droit di exercer politique Sénégal ngay gis ay magistrats yu def politique di campagne gis nañ fi procureur Mbour fi magistrat bu exercer fonction am meeting di campagne al Macky Sall c'est-à-dire Macky Sall dafa rabaisser tay la république

fii laay terminé wu ak photo bi nga xam ne itam ñëpp partagé nañ ko photo boo xam ne yaa yaa si nekk euh, comme ni ko doon waxee rek ni euh, photo bi nga euh, sóobu woon si grève de vin je pense bien que loolu la nga feebuloon trop ba yegg sa ñu daal lay jël si fii si li nga xam ne moo université bi alors ñu daal lay jël sa photo boobu daal di koy collé ak bu pap Alé Niang histoire boobu naka la demee. waaw honnêtement man def naa ci communiqué sax nee naa man xaw ma l'auteur bi montage photo boobu boobu nekk benn génn naa aussi def communiqué confirmer que ni photo boobu sama photo la lañ jël montage ko bobu nekenyar. ñaar photo Bobu, ñu ko jëlé fi devant le rectorat xam nga Macky Sall ko andut ak mom mu jaay la doole dàq la Sonko bu mu commencé diko dénoncer la ko injustement ci fi nga xamante ni man aussi la même chose après les événements de mars le 2 juillet ñu yobuma conseil de discipline ci lo xamante ne matul jarul sax réprimander.

te ñu bokkoon ci si bi ana am Abdoulaye Balde ay Awa Koudou Ndiaye ana ñu tey ñoom ñëpp ñu ngi derrière Macky Sall mu couvrir leen protéger leen in ay ay day ñong injustice boobu am ci réew mi ñun moom na ñuy xeex su fekkee ni dafa arrangé Ousmane Sonko c'est sa chance su fekkee ni arrangé wul Ousmane Sonko suñu yoon nekku si mais dëgg fu mu ne ñun moom ñuy xeex ci Abdoulaye Touré fait partie parmi les étudiants il en tout cas il combat farouchement contre sa dictature qu'il veut imposer dans ce pays Nous avons ma ci nous atukas euh, at nous ainsi que dans toutes les autres universités du pays avons universités publiques ci nous def de la donc confirmer nañu que ni suñu image mais aussi mën nek du côté de l'opposition ñoko montage pour montrer la situation critique et toucher la sensibilité des sénégalais mën nek aussi comme du côté de du pouvoir parce que mbir amna ñepp nga crier santé ou Pape Alé nous ñu ne xaaral montage ben photo dugal ko bu ko défé après ñu def comme si que opposition bee ko dugal ñu crier manipulation lolu yëpp mën na ci am mais quoi qu'il en soit je pense que période bobu ñu tolloon. Euh, li nga xamantene mo moo jamp ñu waroon ci gën def focus au delà ci photo bi muy la situation euh, sanitaire très critique de Pape Alé et que man ci lool la gën a appesantir. ñu ngi remercier bu baax a baax a baax Pape euh, Abdoulaye Touré pour tous ces éclaircissements bàyyi nga daal tàggatoo yéen nag jamono jëpp yéen tenir ay conférence de presse conférence de presse lan ngeen waajal c'est la question qui se pose bàyyi nga daal tàggatoo waale en même temps. waaw gis nga ni depuis un certain temps Macky Sall comme c'est un dictateur un apprenti dictateur très brillant parce que dictateur n'est qu'un concours général Macky Sall mention très honorable lay génne donc juste pour vous montrer le degré de la dictature de Macky Sall depuis lors il a pris en otage il a séquestré à travers sa justice soumis à genoux à son service exclusif Diap et doomu jàmbur tëj leen ci kaso bi nit dof moo ci mujj barki Demb, xaw Demb. Demb rek Fek nañ ko këram jàpp ko tëj ko te nit dof lu muy def lu koy Toumal. Mom la euh, nu mu tudd ci euh, xawma lan borom pistolet bobu nan àggan te mu nek assemblée Koura Maki. de maki la ci réew te du mujj fenn parce que Macky Sall la peu Macky Sall mo fi nommé insulteur public muy xawma Souleymane Ndiaye la xawma Souleymane Diop mu ministre conseiller rattaché à la présidence manam palais lay dama Macky Sall fi fi dem ba France and ak le plus grand insulteur de la République def ak live photo ak indigo andi ko fii Sénégal mu koy campagnal Macky Sall warul bañ saaga parce qu'il est le prototype des Sénégalais qui incarnent l'insulte publique l'injure publique Macky Sall moo indique njëkk incarné moom indique rabaisser la république balaa maa dee soo àndut ak moom soo génnee même soit ko saagawul le fekk nga saaga rek mu dem jël la naan laan injure publique di coller ay motifs ay appel à l'insurrection fan nga déggee ci live nit dof muy appel à l'insurrection amut mais ku mu jàpp foog mu coller le motif collé la ay motif ay ay c'est-à-dire ay faux do un faux dossier pour yóbbu la instruction moo tax duñ ko mës a yóbbu flagrant délit. ci loolu euh, les détenus politiques bàyyi nañ lañu daal di ñibbi Atoumane Diagne euh, ak ki nga xam nekk moo di ñoom Cheikh Oumar Diagne euh, ñoom ki na déet daa bàyyi ñett jàpp ñeent maanaam dafa bàyyi ñett jàpp ñeent Macky Sall bàyyi na ñett muy kan muy Pape Alé Niang muy professeur Cheikh Omar Diagne muy Karim Xurum Xaak yokat ci ñaar muy Papito Kara ak Ousmane Diagne jappat ñeent te xamna ni bi di ñew so moytul ma ci top muy muy juróom non parce que ñom seen liste la yor Ousmane Sar, mi ngi ci kasso bi récemment lañ ko tej deux mois de prison Ousmane Sar, mi ngi croupir en prison bu nitu deug valeur Bayna Gueye nitu deug valeur mi ngi croupir en prison waye aussi également Amadou Sourang Diallo bi nga xamantene collectif ñoo lànk la bok mi ngi croupir en prison nga lan lañ leen di topé pour deux mois de prison libéré Pape Alé devant le Petit Palais rencontre bi amoon ci diggante société civile ak premier ministre rencontre bi jeex premier ministre di romb ak ministre de la justice ñu ne leen libéré Pape Alé Niang ñu jàpp leen tëj leen ci deux mois de prison au même moment délinquant yi ñu épinglé ci rapport Covid 19 bi muy la cour des comptes ministre ak directeur général yu sàcc alalu réew mi ñu gën a libre man mun naa génn léegi ñu teg ma loxo ñooñu ñoo ma gën a libre dans un état de droit dans un état normal et normé ñooñu kenn waru leen woon a jiitu kaso. au même moment 29 milliards il se permet de porter plainte Ousmane Sonko Il y a IGE IGF mais du IGE ci un maanaam ñaari corps Ousmane Sonko IGE alors que IGF tu ne nie même pas le fait que nous avons tout mal 29 milliards détournés détourné ci produit. au même moment Cheikh Omar Niébé y mi un confie, kudd bi na 500 millions à lu Macky Sall promouvoir ko def ko ministre de l'enseignement supérieur jóge fa def ko ministre de l'éducation nationale. ana Cheikh Omar qui euh, numu mu Mamour Diallo 94 milliards ñu la koy topé aujourd'hui il est le directeur de la euh, de l'ONAS ak ñeneen ak ñeneen ana SN Post ñu koy 108 milliards yu mu détourné réew mi lu fi nous mënuñu ko mënuñu ko accepter les délinquants de la république les voleurs les criminels ana gazé li 32 milliards de faux billets jàpp ko en flagrant délit ak tentative de corruption à un agent assermenté des agents de la gendarmerie eh, tey moo ñu gën libre fi il faut que sénégalais yeewu ci Macky Sall il faut d'ailleurs il faut que la communauté internationale nous tamit comment Macky Sall est géré ce pays une justice à double vitesse une justice qui, xamante ne ku ànd ak Macky Sall mën nga nit du Fulbert Sambou rey nañ ko fan la mujj les 14 personnes tuées lors des événements de mars ay policiers taxaw ni parcelle Assainies policiers bobu dégg naa dañ ko rawale fan la muju du muju fenn ak ñom ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ño xamanteni ray nañ leen ci réew mi du muju fenn parce que ñu ñu leen ray ñu leen fat Macky Sall lañ et ils ont rendu service à Macky Sall loolu du deug du yoon ñu lay sante di la ci présence bi di jàpp ni tamit euh, ni réew mi ñu ko taal à aucun te luy taal réew mi ci justice. Encore une fois, ce dossier est vide du début jusqu'à la fin. amul de témoin bu accablé Ousmane Sonko rapport médical bi la gynécologue conférence de presse am lu ci wax proposé ko bu pour mu changer version mu lank teud ci souf. Ndeye Khady borom suite Beauté millions pour changer changer version mu lank teud ci souf. donc audio ay audio confirmer la thèse du complot encore une fois il ne faut pas tuer d'autres jeunes sénégalais sur la base que kii sama principal adversaire là, Beaucoup mu dem ci ay élection me liquider ko politiquement jaarale ko ci justice loolu bés bu amee ci réew mi dina fi jot yeneen ñombe donc il est temps de se ressaisir avant qu'il avant qu'il est trop tard. merci beaucoup Pape Abdoulaye Touré jërëjëf. jërëjëf ñu koy remercier bu baax a baax moom tamit saa su nekk si disponibilité bi ñu euh, koy remercier fekk ko fii si li nga xam ne pavillon université Cheikh Anta bu mbokk yi di leen remercier bu baax baax euh, très prochainement si 5 TV bye.